salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nii teewlu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar kulli xaalin dikkal ci lu am solo lu bari njariñ muy daqaar nag bëri na mi faj ci tawat yi nga xam ne mu ngi gar doomi aadama yi xëy na lu ci ëpp nag ni ñi dañ ko dul bàyyi xel ñàkk gi ñu koy ñàkk a bàyyi xel moo tax muy des lu baree baree bari. daqaar nekkul am solo nag ci wàllu wér-gu-yaram nekkul tamit lu bari njariñ eh, alaa kulli xaal yi nag bu dente koo xam ne day faral yëg yaramam day day tàng lu baree bari day faral di jëfandikoo daqaar ñuy bàyyi xel ne lépp lu ne day faj nag naturellement boo gën naturel bi mu ëpp effet bu naturel ñu bàyyi ci xel bu baax a baax baax kon ku am yaram bi tàng wara biir bi daw wa illaa nga yenn bañ yenn virus yi dugg la bala indil yenn feebar yi del faral di jëfandikoo daqaar rek naturellement bu dee koo xam ne day faral yaramam day faral tàng day ut daqaar xooj ko def ci suukar di ko naan yaram bi tànk yàlla mën na koo dimbal ba mucc ci ba tey it bu dee koo xam ne daa seere wala biir bi daw wutal daqaar boole ko buy mu jàmb ko def ci suukar di ko naan incha allah bu dee yaram bi metti képp rek wala biir boo xam ne daa seer woon mënta daw wala koo xam ne biir bi day daw yooyu yëpp bu ko jëfandikoo yàlla dina ko dina ko dimbali ba tey daqaar nga baxal ko boole ko jinjeer benn garaam boole ko moom it di ko naan dina dimbali ci yenn virus yu baree bari yoo xam ne dina tax yenn tawat yi bañ laa gaar ba tey bu dara jarut bu la dara jotut jël jëfandikoo daqaar naturellement di ko naan moom kese boolu si def sukar kese kese di ko naan loole danal dimbali ci yenn tawat yu bare bare yàlla mën naa dogal nga mucc ci kon daxaar baax na lool ci di ko jëfandikoo ci wàllu wér-yaram ndax am na ay ferñeent yu ci nekk yoo xam di ko naturellement lu ci baax la kon daxaar baax na ci yaram bi tàng biir bi daw bopp bi metti wala nga bañ yenn virus yi gaar la yi dal boko di jëfëndiko mi Dakar diko nan naturellement tawat ju bare bare yalla man na dogal mu ci keur docteur mom man nga fa baña bari tank kon lolit lu ma di baye xel kon Dakar lu am solo la waye lu bari ay njariñ la yo xamne yu mat di baye xel kon tuti nga ci defal bolu ko sukar inshallah diko nan yalla man na dimbal ci yeen tawat